di jaajëfal soppe yépp ak am di jàmm yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew di ci ni ngeen di rafetloo jotaay bi di békki ni ngeen ciy ànd ak ñun ñaan suñ borom subhaanahu mu defal ñu dégg waaye ñaan ko mu defal ñu ak topp ñaan ko mu boole ñu ci nit ñi nga xam ne mu leen gënalee ci kaw suuf ngëneel googu day feeñ ci seeni jëf day feeñ ci seeni wax te liy tax ba mu mën a feeñ ak nite dong mooy tax nit ki mën a àgg ci étape boobu ndax su fekkente ne moom dañ koo wax ne ko yaa gën xar yi yaa gën bëy yi yaa gën nag yi ba tax sax sañ nga leen a rey ci sa coobaree bopp jëfandikoo seenu ndawal num la neexee ndax ngënal googu suñ boroom tàggatal doomu aadama tàggatale ko noonu asamaan si ak suuf si li ci diggante bi yépp suñ boroom tàggatal ko ko tàggatal ko géej gi tàggatal ko jéeri ji mu yéeg ci wata yeeg abiyon yi saña lekk ka naan ak jëfandikoo am xelam suñ borom ne ko nag yooyu yëpp def naa ko mu jàppandi ci yow waaye bàyyi ma xel man man li ma bëgg ci yow du dara lu dul nga bàyyi ma xel rek nga xam ne doomu aadama bi saa yu wéetee war nay natt boppam ci diggante boobu te liy tax mu mën a natt boppam ba diggante boobu jub mooy mu xool li nga xam ne mooy ay jikkoom moo tax tey bu ñu indi suñu njàngat ci suñu waxtaan wi day mel ne dañuy gis ne jullit bi nga xam ne moo gën a mat ak ngëm mooy ki nga xam ne moo gën a rafet ay jikko wax jooju mën naa nekk benn baat waaye xajut ci wenn waxtaan ak akmalul mu'minina imaanan ahsanuhum xuluxan ki gën a mat ak ngëm mooy ki gën a rafet jikko kon da ngay gis ne ki gënal yàlla mooy ki gën rafet jikko ndax ngëm yàlla day def ay jeexital ci ay jikko te doomu aadama bi bu ay jikkoom baaxee nekkam ci société bi lépp day baax waaye bu ay jikkoom baaxut taxawaayam ci société bi lépp moo kum puppayam maanaam niteem googu nitoo di ku gaay tax posen lay doon waaye dootu nekkati garab te dañoo waxoon ne nit nitay garabam waaye nitoo diku nag mooy doon posenam ndax bu boobaa mooy alak boppam moo tax doomu aadama bi ci ay mission yi muy am ci kaw suuf la cay jiitu mooy defaru ba doon nit suñ boroom noonu la mas di tàggate ñi mase a yónni ñëpp boo jëlee ku mel ne suñu maam aadama alayhi salaam keroog bi ko suñ boroom tànnee fekk malaayika yi dayo bañ amoon ci suñ boroom ngir jàpp ne suñ boroom moom nguuram daal moom la fonk moo tax ñi ngi koy sàbbaal guddi ak bëccëg loolu doy na soxlawut leneen suñ boroom nam ma wàccee ci kaw suuf luy wone ak màggam dëgg-dëgg te moo ne ñam nekkaloon xamoon nañu màggam ba ne ko woon wa na nu sabbixu bi xam xamdika wa nu xaddisu lak mu bind aadama malaaka yépp sàbbaal ko suñ boroom ne aadama kaay ma won la loo xam ne say say sët yi war a ñëw ba àdduna di tukki war nañ cee mën a jànge war nañ cee mën a xool naa ngi nii duggal aadama dugg ak jabaram suñ borom ne ko lépp yéen ko moom waaye nag ba mu des lenn képp mooy garab gi fa kulaa minha raxadan ay su waaye nag wala taqraba sa jara garab gi moom waxuma lekk ko waaye bu leen ko jege na ngeen na ngeen ko fi ne ñukk bu ngeen ko defee ma boole leen ci tooñkat yi ñi nga xam ne ñooy jàdd ndigal mu mel ne léeg su may xalaat ci tomb boobu damay wax ne suñu maam aadama mën nañoo wax ne lenn la ko suñ boroom tere lenn képp te mucc ca lenn képp la ko tere te mucc ca maanaam àjjanaak ni mu yaatoo ñu ne ko defal lu la neex waaye bul laal garab gi te muccut ci laalum garab ga ñun ñi nga xam ne ay sëtam lañ nekk fii ci kaw suuf fiñ nekk xat lool liñ ñu fi tere bari lool fiñ nekk xat lool liñ ñu fi tere bari lool kon ñàkk cee mucc du njàmbaar góorlu ba mucc ci moom jàmbaar dëgg dëgg dëgg la moo tax def cee effort baax moo tax mat gi am solo mat mat nit day fexe mat moo tax fa adallahuma seytaan fa axraja moo ca topp seytaane ba mu leen tarxiis loo <coughs> ndax suñ boroom waxut aadama sàggan waaye aadama ñàkk ak dogu suñ boroom wax na ko te du tegtale ñàkk mat ci maam aadama kim yónni ci ñun nag di yonent bi alayhi salaatu wax waxam juree jooju wax ne ki gën a mat ci yéen ak ngëm yàlla mooy ki gën a rafet ay jikko ki gën ci yéen mooy ki gën ci aw jigéenam li muy tekki mooy ki gën ci waa këram ndax baax ci mbedd mi daa gën a yomb baax ci sa waa kër ndax mbedd mi am na foo xam ne duñ fa àgg ak yow waaye sa biir kër baax fa xaw naa jafe baax sa biir kër li muy jafe-jafe baax ci say soxnaa ko gën a jafe ndax ñoom sax wilaaya dañ koy yeex a xam te itam li ngay jaay ci bitti ñoom dañ koy mën a jënd ci biir moo tax nag baax ci ñoom baax lu yaatu la baax lu yaatu la ndax fi mu ne waajur wu baax wi du bëgg njabootam ne dafa baax ba tax du leen yar ndax balaa baax dëgg mooy mu mën a yar ak njabootam balaa baax dëgg mooy bu gisee safaan ba mu mën a taxaw jubbanti ko mu mën a taxaw jubbanti ko waaw bu gisee loo xamante ne du yoon mu jël position taxaw ca bu boobaa loolaay doon ak mbaax ndax mooy tànneef tànneef xiyaarukum waaw mooy ñi nga xam ne dañ leen a tànn tànn mooy lu baax la ñu dem jël ca la ca gën moom la sëriñ bi waxoon ba muy woy yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko tagg ne ko li kulli min jumlatil axyaari martabatun ñoom ñooñ nga xam ne ñu baax ñi lañ di yonent yi te ñu tànn leen kenn ku ne am nga wàccuwaay am nga dayo boo am waaye nag ahmadul muxtaari muxtaaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne mooy ku ñu tànn ki mooy tànneef bu mag ba waaw waa kër xulaamu rasul noonu lañ koy wooyee naan muxtaaru muxtaaru siiratul axyaari muxtaaru sang ba ca madina borom barrière or boobu moo wax wax ju jooju ndax bëgg nit ñi nite mu mel ne bu ñu xoolee dañuy gis ne xadis boobu ci cosaanul diine min usuli diin ki gën a mat ak ngëm yàlla ki gën a mat ak ngëm buñ koy xool mooy ki gën a rafeti jikko moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki gën a mat ak ngëm yàlla ndax mooy ki gën a rafet ay jikko ku rafetoon ay jikko la moo tax day tegtale ay ngënam ak ak ngëm yàllaam lu wér la waaye bu ñu seetlu ak dundam dañuy gis ne lim indi woon ngir niteel nit fexe ba nit xam da caa bokk fexe ba nit xam da bokk li tiidloo ko am xel tey xool kay mooy su fekkente ne xam-xam bari na lool waaye réer bari lool réer bari xam bari na lool réer nag bari lool moom itam sànkute bari lool doye di bari lool ñàkk personnalité bari lool te yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne xam-xam da ko doon def si ci nit am am bari lool ba noppi ñàkk bari lool tumuranke tumuranke bari lool ndax nit ñi séddu ni ñu yore liñ séddoo moo tax xam-xam bari lool ku bari lool te moon day ku xam ku ne danga daan ragal innama yax innama yaxsa allah min ibadihi al ulama yàlla nee na ñi may bàyyi xel dëgg-dëgg te war maa ragal génnut ñi nga xam ne dañoo xam xàmmee yëg li xew ak fi ma jaar ak ñoom jigéen ji ne ci kër gi tey kuy ragal yàlla ku nekk kenn waru ko woon a gën a ragal yàlla ndax léeg-léeg fi yàlla jaar ak moom moo tax ngir mu xam ne mooy yàlla su fekkent ne mas naa ëmb tey waxambaane wi di waaxu moom mooy woy juram nekkoon na bis ci biir biiram bi lemu léeg mu yëngutu muy tëdd ko jóg di dem di visitu ji ba bis ñëw mu génnee ko mu dib liir nga xam ne bi mu génnee rek ku ko bëggoona dugalaat fa jaaroon mënu faa jaaraat yàlla xam na ko suñ borom jaar ak moom foofu ci ay communication mu jox ko ween wi waxu ko maccal xale bi tàmbulee macc ba bis ñëw mu mën a raam ba bis ñëw mu mën a dox ba bis ñëw mu mën koo doxali yónneen ba bis ñëw moom mi mënoon a dox ak di eh, di fabaka boot tey boo muy tuut xale bee koy may loxo mu jóg moo koy toppatoo moo koy doxal li mu bëgg a dox lépp dem ba bis ñëw mu yor ko ku waaruwut ci foofu yàlla di jaar ak nit ba mu nitee day mel ne bokkut ci ñi nga xam ne dañuy setantal bokkut ci al ulama yonent bi sallallahu alayhi wa kon wax ne dañ maa yónni ma nekk ab jàngalekat wa innama bu'istu mualliman waaw dama